question bi dafa am solo parce que nit ñi souvent euh, dañuy emporté wu par événement bi te jouru tabaski comme yeneen jour la rek particularité bi mooy tabaski la tudd moom te dañ ci rey xar yeneen jour yi sax du ñàkk dina am jour bi ñu rey xar mais duñ ko tuddee tabaski donc sax veut dire moom dafa am particularité mais euh, lekk bi ñu koy lekkee moom comme li ma doon wax sànq ni que dañu war a équilibrer alimentation on doit manger sain ba pare et équilibré bu ñu reyee xar c'est vrai que nit ñi dañu bëgg wàjj ñu wàjj xar mooy maanaam lakk ko il faut nga choisir entre nga lakk lekk bu suur ci loolu daal di nag jël leneen du oyof accompagner ko bu dee xiifaat nga ci diggante bi wala nga tuddee loolu añ mën na bañ a mën nga bañ a gaaw xiif parce que c'est sûr que tabaski kenn du jóg fajar rey sa xar foog nga julli léegi nii rek ñoo koy def mais foog nga dem julli ji imaam rey nga rey nga doog rey donc sa un processus day jël temps aussi nga xool le matin 9h la ñuy julli daanaka maximum au plus tard 9h 9h et quelque. tu léegi nag diggante boobu noonu temps bi dem na nga dem war a rey war a fees war a toog préparer ko ba lakk ba mu ñor nga toog nit ñi lekk loolu boo xoolee heure añ lay tombé. mu tombé heure añ les gens ont dit que dañu lekk yàpp rek dañu wàññi rek mais añaguñu qu'est-ce que ça veut añaguñu mooy ban wax lekk nga ba suur añ nga lépp loo xamante ni heure lekk boobu noonu def nga ko suur lekk nga ko suur nga rek añ la donte fruit rek nga lekk sax suur nga rek añ nga mais les gens disent que añaguma ils disent ma togg ceebu yàpp imagine nga togg ceebu yàpp am na ñoo xam noonu la ñuy def am ñoo xamante ni bi ñoom ndax ñoom ceeb moom mënuñu koo bañ a lekk moom ndax sénégalais ñun dañ ko tàmm ba dañ ko dugal ci suñu lépp ñu ni wàjj lekk nañu wàjj dañuy lekk ceeb bi yàpp ñu añee ko vers quatre cinq heures ñu añee ko dafa diis ceeb déjà xam nga euh, dafa dafa riche en ndax dafa dafa dafa am énergie ñu jóge ci te dafa bëri suukar ñu jóge si ak yàpp bi ak graisse bi. ñu ñëwaat ay booru 18 heures 19 heures maanaam buñ jullee timis rek. ñu ni reer nga xool est-ce que est-ce que boo waxalee yàlla heure boobu da ngay xiif du xiif di dañu wax kenn réerul tey pourquoi nit ñi dañu war a reer. dañu war a añ te ñu alors que lépp lu yàq añ añ la loolu Olof Njaay daan na ko wax. lu yàq añ añ la donc pourquoi ñuy exiger trois plats yi wala ñuy exiger par force comme ni ñu daan lekkee. comme jour bi dafa spécial nañ ko changer ñu defal ko un régime spécial ndekki nga nga dem julli ji boo ñëwee lakk tu choisis entre lakk ak ceebu yàpp nga bañ a lakk nga togg sa ceebu yàpp wala nga sa macaroni wala sa spaghetti yaa xam wala sa vermicelle yaa xam loolu bëgg wala sa wàjj nga lekk ko ba suur mu añ jeex na reer bi nga seetlu léger nga lekk ko bu lekkaat yàpp mm. surcharge la ci sa veine mooy indi lu si bëri bëri HTA yi ndax da ngay chargé sa veine ni mu waree circuler du ko circuler la preuve yàpp xar mhm. tabaski boo ko lekkee da ngay tayal tëdd nelaw ngay def yàlla bu ci teg ay boisson da ngay nelaw defoo benn activité brûlé woo benn calorie léegi nag mu accumulé wu mhm. sang bi circulé wul normal nga ñëw bëgg tegaat encore leneen daf lay sonal nga lekk lu léger delal sa salaat ordinaire kese nga lekk ko salade ordinaire ay légumes kese la yoo yoo yoo yoo def ci tuuti marinade def ci sa salade si léger nga lekk ko moom kese jarul sax mburu jeex na nga daal di naan sa ndox kese surtout guddi gi soo mënee defar sa kénkeliba nga naan kénkeliba ça digère très bien infusion rek boo amee sa six feuilles de quinqueliba nga def ki si sa un litre d'eau nga baxal ndox mi raxas six feuilles yi sànni ko si sànni si tuuti naan la nga xel nit ñi ñu naan sans sucre day dégraisser te day digérer bu ko defee du la sonal sa estomac bi du diis te di ko digérer facilement mais jël ndékki ndékki ba suur dem ñëw lekk waaj ñëwaat añaat ñëwaat reeraat loolu dafa bëri man je préfère ñu respecter trois plats yi mais ñu def ko d'une manière boo xamante ni du la diisal añ bi moom bu diisee reer bi na léger loolu moom suñ ko defee ñëpp dinañ lekk bu suur dinañ naan ba man te kenn du ci gaañu ndax boo xoolee yéen docteurs yi li si bëri seen seen seen liggéey mu ngi bëri après tabaski jour tabaski sax da ngeen di am ay malade te yéen da ngeen bëgg tabaski comme ñëpp bëgg a noppale ko bëgg a toog en famille mais jour boobu la seen malade di commencer te loolu ñàkk xam la eh, tey ñun yàgg nañ di ci dox di ci waxtaan ak nit ñi pour ñu xam ni loolu surplus alimentaire la te daf lay sonal te mais nit ñi dañuy continuer rek di ko def te xorom bu bëri bi tamit di ko boole guddi gi nga bëgg a lekkaat encore yàpp te dafay saf xorom loolu tam baaxul comment préparer comment manger sànq wax naa ko mais comment préparer yàpp yàpp xar en général bu tabaski day duuf pour éviter graisse bi laaj na nga dindi graisse bu bëri bëri dindi graisse bu bëri togg sa ndawal walla boo bàyyee graisse boo dindee graisse am tuuti loo ci bàyyi tamit nga ñulu ko nga baxal ko ba mu ñor mu bañ mu neexal lekk parce que itamit la santé bëñ yi la santé des dents la da ci am solo da nga siy gis ñoo xamante ne dentiste yu bari ñoom tamit ci lañu commencé am mal ay malade parce que yàpp bi du dëgg du ñor torop ñu koy ñoddi di ko ñoddi naan lakk boobu ñuy lakk noonu yenn saa mu ñor yenn saa du ñor voilà ndax du ñëpp xam ni ñuy lakkee da nga koy njëkk muusal ba mu ñor xob ko bàyyi ko mu bi deñ ndax même boo doon dindee graisse bi day desaat graisse mais da ngay dindi graisse bi muusal ko ba mu ndox def si sa tuuti ay oignon vert ay laaj dugg ba mokk nga def ko si nga muusal ko ba mu ñor ko defee nga siital ko ba mu siit graisse boobu génne nga doog a teg ci sa grillage nga lakk donc même booy lakk da war a muusal ba mu ñor ba pare. ça permet yàpp bi tendre mu ñor sa permet yenn affaire yi ne ci biir euh, fibre yàpp bi am yu dee ndax am na ci ay saan te ñaay ak yooyu di ci am te nit ñi xamuñu loolu. dañ koy boo ko baxalee nag dina am dina leen rey su ko defee nag graisse bi tam wàcc nga daal di koy teg ci sa kaw grillage mariné nga teg sa grillage nga lakk ko ndànk-ndànk à feu doux bu xal bi bu xal bi bëri mhm. xal na yem rek nga mhm. xamante ni da koy lakk mu ñor ah mu xeeñ lakk mhm. te fekk du niin du la sonal mais nit ñi dañuy nit ñi seen bopp ñooy jël graisse bi di ko yëy di lekk noonu graisse bi te c'est grave graisse bi ñu nañ bëgg nañ ko lool mais nañ ko éviter surtout jour tabaski parce que dafa dafa dafa dafay foor trop waaw te dafay sonal nit ñi togg boobu moom bu ñu ko defee man je préfère dina wàññi graisse bi te ñu bañ si def bouillon yi ndax xorom rek doy na ci yàpp xar boo boo même boo demee dibiteri bi ñu la lakkalee nii da ngay gis xorom rek lañ ciy suy te dañuy lakk ba pare doog ci suy xorom duñ ko ci defaale sax uniquement rek pour xorom ji bañ ko dugg trop. muy wex ngay am de forte dose en quantité de sel te dafay dafay am lu mu wàññi nga jëlaat encore bouillon yi nga xam ne sel kese la dolliwaat ko ci tamit fois dafay wex xat te baaxul du neexal lekk ba pare te dafay dafay yéegal trop sa tension day gaaw donc loolu moom laay préféré ñu def ñu toggee ko loolu mooy technique culinaire bi nga xamante ni ñun moom la ñu conseiller en général nit ñi di ko toggee